Iya, waaw eh, pas si cher na mais auto aussi gisun ko fenn waaw oto amul en même temps parce que bo ba léegi ñoo gis sax benn bis fi taxaw pour jël client yi euh auto yi aussi pass bi ñuy wax cher na trop parce que auto yu ndaw yi ñu ngi wax ay dix mille boo ko seetloo boo àndeek nit aussi day xawa ki day xawa metti bo boo ak mbolo day xawa metti quoi waaw te aussi ñom ñep ci benn prix lañ japp 10000 mille ñuy wax ah, après moy lolu quoi. bis ci nak ñom ñom buñ taxawé wa non ci tax nga mënul gis instant yi ni ay tata ñoo fi ñëw ay quelques tata buñu ñëwé ay 5000 mille la ñuy yebee balaa ñuy taxaw fess nañ wa fu mu ne dal problème auto lañ am franchement problème auto parce que boo seetloo ñun ay min bi ba légui ñu ngi fi waaw té am na ñoo xamné nañ ay 6h ci ngone ma ba yël ba légui ñu nga fay aussi. mun mënuñoo am oto kon affaire bi garaaw na trop garaaw na trop waaw fii instant yi moom bu fekkee yow sa gis-gis maanaam leer na rek moom maanaam ñu leen fii màggal dafa doon loo xamante ni ñun murit yi buñ si jugee màggalu ren bu déwén la ñuy waaj kon newul paas moo ñu fi téye maanaam oto yi ñoo xaw a jàppandiwul quoi ñoo yegseegul si maanaam jamono yiñ toll nii moom lañ fi maanaam xaar ba léegi nii. ay minuit ba léegi ñu ngi fi mais oto daal moo yegseegul daal pour ñu mën a màggale ko tedd gi xaadimal Moustapha. est-ce que nekkul tamit bâche tamit chauffeur yi cherul boo xoolee tamit waaw loolu tamit da ciy joué quoi parce que yàlla dafa sàkk te yemalewul te wërsëg yi tolloowuñ te chauffeur yi tamit ñoom maanaam seen liggéey daal lañu xool pour doxal ko quoi parce nit ñu moom lu mu dee dee fii ñi fi toog ñi fi sëñ Touba jaral na leen cent mille un million ay cinquante millions mais maanaam chauffeurs yi ñoom ñooy xool seen liggéey lu ko mën a doxal daal ñu samp ko foofu ba naanam kenn mënu si dara mais fekkee dëgg rek moo neex yàlla daal mais oto daal xaw na fee jafe daal mais pas paas quoi. waaw paas yi seer na en plus oto tamit dafa xaw a manqué quoi. mais ñoo ngi sant Serigne Touba heure bu ñu fi jëlee rek dinañ dem ci kàttanu yàlla ñaan yàlla àgg ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke borom Touba.